nga ne xar mi ñaata lay jar xar mi mille sept cent mille la démarré cinq cent mille la gaare daal fii waaw mille cinq cent mille la gaare waaw dama gis nga woon ma benn xaru laadum bi jar un million waaw waaw lan moo tax xar mi war a jar loolu waaw xar mi xale di waaw fay nañ ma ci fay nañ ma ci 700 fay nañ ma ci 750 bi may jaay un million waaw dégg naa ci loolu wax dëgg yàlla bii nii fay nañ ma ci 400 ma jaay loolu. mais faral nga di jaay xar yi ci prix boobu. waaw waaw dëgg yàlla jaay naa ko jaay di ko jaay naa ko jaay di ko benn bi ñaar. mais lan moo tax xar mi war a jar loolu. waaw xar mi war a jar loolu mooy ko raas bu baax la laadum la maa ko juddale toppatoo ko. ba mu mel mu mel lu mu war a mel macha allah ñoom boo xoolee da nga xam ne xar yi seen borom sonn na ci moo tax ba jël fii jëlee ay gardien di leen fay ba pare di fay base bi tamit aussi ngooñ tamit xam nga fu mu toll saabu 10 000 di passe 9 000. mais client yaa ngi ñëw. waaw ñu ngi ñëw ba macha allah. ñu ngi waxaat. mais noo gisee marché bi tabaski bi ñetti fan ñaar ñax moo ci des euh, noo gisee clients yeeg njaay bi. waaw clients yi de ñu ngi ñëw ñu ngi waaw ñu ngi yor ñu ngi tolloon ñu waaw macha allah mais am naa yaakaar daal nit ñi daal bu yaboon daal ñu teel a daal. ñu mën a parce que te ni ma gisee ni xar nar naa nar